sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka wa xaliilihi wa xabibihi alayhi salaatu wa salaam bi alihi wa sahbihi wa ahbabtahu wa axtabtahu wa raditahu lahu fi lxaali walmaali bila aafatin wala kadarin qabla lhibati wa xinda usuliha wa baada usuliha abadan amin ya rabbal alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh ñu ngi nuyu bokk yu tedd yi fi teew yépp di yëkkati suñu kàddu ci ndigal ki nga xam ne ci ndigalam ak ñaanam ak ci teewaayam ak digleem ci lañ fi tey muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fii loolu te ànd ak ndax liggéey bii kat mooy borom liggéey bi ndax moo fi nekk Serigne Touba lu ñu ciy def itam ci ndigalam lañ koy defee sañu cay yëkkati bant te amul ci ndigal ci moom fu ñu ci yem looy fa lañ cay yem lépp luñ ci war a def it lay jiitu mooy dem laaj ko ndigal ba jox ñu ndigal ñu door waxee loolu kon ci turam dégg ngeen vidéo ma ak sama bokk yu tedd yi ma àndal nga xam ne daanaka njabootu Serigne Touba gi ñi ci ëpp ñëw nañu ndax xam ngeen leen ñëpp ay kilifa yu mag lañu kenn amu ci jot ku ci ne yaa ngi teewal kër yu mag yoo xam ne jëmmal diggante Serigne Touba ak bokkañam àndoon ak magitaal bi ma àndoon loolu rek a tax ñu fi nekk kenn amu ci jot ku ci ne boo yebaloo ndaw mu doy kon cant gi sax jëru ko ndax seen bopp lañ koy defal ndax seen yëfa waaye kon Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi cantam ak ngërëmam ci yéen ñi xam ne liggéey bi na ngeen ko daan defee ci kilifaam yoo ko jëkk wét ngeen ko ci gunge ngeen ko ci ànd ngeen moom lépp kon ñu ngi ñaan na seen maam yu teddee àndewoon Serigne Touba te yéen itam ngeen àndeek moom noonu. yàlla ngeen ci daje payu yàlla day cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa di nuyu mboolem kilifa yi fi teew ci wàllu àdduna di ko teg ci loxol gouverneur de la région di Diourbel nga xam ne bi mu fi door a ñëw di ku baax di taalibe yàlla defal ko tawféex ñu indi ko fi waaye diggante bi li muy gàtt gàtt amu ko fi lu ëpp ñaari ay bis waaye. dox na fi jéego yu am solo ndax bi mu àndeek waa assainissement ndax amoon nañ jafe-jafe ma boole woon nag sëñ Abdul Ahad Ka ñu ànd di wër ndax fu ñu yóbbu ndoxum Tuubaa mi doonoon na jafe-jafe danaa ci dellusiwaat sax waaye mu jafe lool te Daaru Rahman xam ngeen ne bassin bu njëkk ba ak foofu di fa lañ ko def te condition yi metti na ndax ndox xam ngeen ne fu mu bari yoon ya du baax dana bari it yuy lore day yàq environnement kon loolu itam danaa ci leer laa lu gàtt ndax waxoon naa ko directeur assainissement soññ ko ne ko nañ fexe ba gën a sécuriser foofu fexe ba it liggéey bi di amal njëriñ nit ñi ndax ndox mu toll noonu mën nañ ko utiliser ci mbay comme ni ko réew réewu tubaab yi defee biñ ci amee jafe-jafe nag yàlla def ak Cheikh mu Mountakha yéeg ne fi ñu wax kër kàbbu ñoom bi ñu xoolee foofu wax na ne mooy fi gën a baax waaye jafe-jafe rek mooy ni ñu nu ñu mën a fexe ba jot ci fekk solution bi ne def nañ ko maa gouverneur ak Abdou Lahad Ka ñoo bokk toog ak service yëpp ñoo ko ko sante bañ xool ba gis ne kër kàbbu lañ gis soo xam ne lañ bëgg lépp attanaw te mooy fa gën ci ñoom bañ ko yégalee sëriñ bi nag sëriñ bi jokkoo ak sëriñ Ahmadou Mokhtar rakkam wax ko ko ndax ci kilifteefam la nekk si ma ne ko jërutoon nga di ma ko yëgal ndax yaa ma yilif yilif suuf sa kon sëriñ bi ci boppam moom ma yónniwaat ci moom ne ma naa ko ko santal gërëmal ko ko ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ne sëriñ Ahmad defal na ko kon di can nuyu gouverneur ci wet googu di nuyu perefe ak sous perefe bu ndaam ci seen taxawaay ci li weesu ci liggéey bi mboolem chef de service yi fi teew yëpp nag bàyyiwuma kenn ba ci ñor yor wàllu santé wàllu sécurité police ak gendarmerie ak sapeur pompier bàyyiwuñ kenn xam naa si Ousmane buy lim dana ci gën a dugg di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy journaliste yi nga xam ne ñoo koy jàlle ba ñëpp mën koo accès kon di sant yàlla bu baax rek ci bu ñu suñ borom mayee ak fekk ak tal bañ teewaat fii ci waxtu wi di waajalaat màggal Tuuba ndax xam ngeen ne ñaari at yi weesu yëpp màggal nañ ko ni ko Sëriñ Tuuba digle waaye màggal nañ ko ci condition yi jafe woon ci nit ñi positifum nit ñi ak seenu dogu ak seenu jaayante ak seen wane na Sëñ Tuubaa wéye ndigalu Sëñ Tuubaa moo leen gën a seen bakkan moo tax ñu màggal ko kon loolu liñ ci war a njëkk jànge te war ko ci gën a dërloo mooy ndigal du lore ndax boobu kat képp ku doon jëfandikoo sam xel la nga doon wax mooy màggal gi nañ ko annulé waaye loolu suñ bakkan jëraluñu ko ñàkk way ndégalu suñ Tuubaa suñ bakkan jëraluñu ko kon nag santaat yàlla bu baax ndax fii lañ daa toog di ko fi waxtaane muy lu jafe màggal nañ ko ñaari mu jàll jàmm màggal guñ ci agsi ci kàttanu yàlla mii def di dindi ak ni mu faree suñ Tuubaa gu ci agsi buñ ci àggee lépp wàcc màggal gi jàlle mu yéegaat kon loolu wane na ne comme dalul xel sa digg ak Sëñ yaakaar naa sama xel dootu daati bokk kon ñuy ñaan rek màggal gi ñu dugg ñu dugg ci te yëf yi bañ a yëkkatikuwaat ndax jàngoor moom suñu borom a koy indi mooy xam na tax mu di ko def kon yàlla ko gën a jeexal ba ñëpp gaynde ci jàmm di sant bu baax rek ñi fi teew dafa fas yéene waxtaane liggéey bi xam naa buñ duggee ji ba ci biir ñi ci kilifa yi ci war a wax danañ ci wax ñi bokk ci comité organisation bi danañ ci wax waaye li ci am solo rek mooy màggal gi day ndigalu Serigne Touba liñ ciy def lépp itam roy sëriñtuwaa Touba koy def ndax sëriñ bi ci njaarim gii ñu nekk tey di ko fi defee fii la ko jëkk woote sëñ Moulay bu sax xam ngeen ne gàtt ba ba ci sëñ bi njëkk rey moom la ko sëriñ bi moo ko joxoon sëriñ bi àddiya ak na ko sëriñ bi loo ca at moom wala ma ca topp sëñ Balla Fally Dieng la sëriñ bi jox ndigal ne ko na wax ñëpp nañ da ko dugal kon luñ ciy def rek roy ndigalu sëñ Tuubaa la sëriñ bi fonkoon ko lool ni ma ko waxee woon daaw saa su ma sant agsi fu ne lañuy defee ay teraanga indi ko bu agsee bu ñu sëlmalee tisbaar sëriñ bi tiim ko ñu séddale ko ci dëkk bi yëpp ñoo xam ne bis bi agsi la ndax màggal gi bisu ndam la bisu feet la bisu victoire la la suñu kilifa bu baax nga bu Abdou Lahad Mbacké daa wax lu mat di fàttali la mooy suñu bisu fête indépendance boo ko waxee nag day day nuru baat bu rëy ndax réew mi dañu ko seq ñëpp waaye màggal gi bu amutoon jot suñu bopp ni ko suñ Moussa ko waxee bu demutoon wolof nasaraanu te ko ñëpp dem dem sa war kon màggal gi mooy suñu bisu fête indépendance ci lañu jot suñu bopp moo tax lislaam mën a tasaaroo ci Sénégal bañ na ko ba bi sëriñ bi ñibbisee sax ci la ndaje diine yëpp tàmbali kon wane na ne sëriñ Touba bañ ko yóbbu bu del siwutoon fa la lislaam di fay kon màggal gi ci la Sénégal jot seen bopp kon tawféex ji it mooy dem na ba ñëpp maase jàppe ko seen yëf waxuma ñi yaakaar sëriñ Touba waaye mboolem ku di jullit màggal gi sa alali bopp nga ko def te sëriñ Touba noonu la ko yéene woon ndax laa nu fariqu bayna ahadin min rusulihi te Serigne Touba loolu moo li jiitoon ci woote mooy jul yëpp nekk benn kon nag alhamdulilahi rabbil alamin kon nag ñu fas yéene dugg si jàmm ni ñu ko daa waajale rek fas nañ ko yéenee def yokk ko waaye du wàññi ko ndax mbirum Serigne Touba kulliyati mu ajisatun taaxar lu mujj rek day gàcceel la weesu ni ñu ko baaxoo defee rek bu ñu àggee ca première safar ba ba sëriñ bi wooteel ko boppam njàngum alxuraan bi ak xasida bi daal day daal di tàmbali ba àgg ca màggal am na benn musaabaxa xuraaniya boo xam ne ñu jàmbaare ñoo am mu mubaadara bi ñu ngi koy tàmbalee ci bu safar duggee jeexale ko ci rabia safar rabia safar xam ngeen ne sëriñ bi tudd na ko kon loolu lu am solo ndax sëriñ Tuubaa lu ñu koy defee ak alxuraan ci war a jiitu ci wàllu commité organisation bi itam li nga xam ne fas nañ ko yéen def mboolem lu ñu daa def soppiwuñ ci dara lépp dañ ko yokk mboolem conférence yi nga xam ne commission culture communication bi suñu Abdoul Ahad Mbacké jiite daana ko def soppiwuñ ci dara waa daayira Rawdu Rayaahin nga xam ne ñoo jiite wàllu culture lañ daa def mboolem conférence yi ñuy def ci penc yëpp danañ ko def te buñ ci àggee bu ñu amul lenn ngant wala ndigalu sëñ bi dem ñu yëpp danañ ko fekk incha allah bu bu mënti nekkin nag ku fa teew rek ñoo xam ne moo fa teewul sëñ bi kon loolu dara soppi ko ci mbooleem programme yi ñu daa def ren incha allah fas yéene wéyee lépp li nga xam ne danañ ko ci dolli ren rek mooy benn ndajem diine bu mag boo xam ne ndaje international lay doon ndaje mi it danañ ci invité. fukki réew ak juróom Sénégal door a ñëw muy fukki ak juróom benn mboolem continent yi dana am ñu fa jóge te yëpp tànn nañ leen ba noppi ba incha allah dana ñëw te biir Touba lañ ko defee ci résidence Cheikhoul Khadim mu nekk ndaje mu rëy moo xam ne gën a wane Serigne Touba rek ci jublu mi ngi tàmbali le 6 safar nga xam dana fekk màggal gi des ab diir ba nit ñi mën koo dund. mën a gën a jànge lu bari ci Sëñ Tuubaa ñoom ñañuy woo ñu ñëw itam buñ dikkee danañ leen wan lan yoon lan mooy yoonu murit jàngal leen lan mooy cosaanu yoon wi ndaje ma nag li ci ëpp mooy yoonu murit ak xam-xam yoonu murit ak diine Tuubaa dëkkub xam-xam dëkkub diine loolu mooy thème bi ci biir loolu nag dana am ay waxtaan yu bari ndax ay fan lay doon bokk na ca lañuy ñuy njëkk def la jiitu mooy bu ñu wàccee danañ jaar Masaalikul Jinaan ngir gis ndax liggéey bu rëy la boo xam ne ci sumb yoon yi gën a màgg la bokk bu ñu fa bàyyi ko danañ jaar njaarim siyaare kër gu mag xool fi sëriñ bi fi ñu ko mujjee gis ci saaxir jaar ci jumaa njaarim xam ne sëriñ Touba moo ko taxawal ci biir ak nekkam bu ñu fa jógee ñëw Touba bu ñu agsee Touba nag li njëkk def mooy dem ci jumaa ji siyaare ji Seexul Xadiim bu ñu fa jógee siyaare ki ku fi nekkal di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax loolu mooy li jëkk ci li ñu war a def du ñàkk nag yu fàtte ci biir na waaye buñ demee ba àgg ca ñu ko war a leeral danañ ko leeral buñ fa jógee danay siyaare ji maktabatu Cheikhul Xadiim mooy daari kaamil ndax foofa xam ngeen ne lu rëy sa fa nekk jeexit Sëñ Tuubaa ju rëy ndax faw ñu wan leen jàngal leen li nga xam ne yoonu murit am na ko ñu gis ko xam ne waaqoon mal muus la bu ñu fa jógee danañ dem université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha sumb na ko def ca milliards yu bari bari yoo xam ne ku ko tuddoon tey dana jaaxal nit ñi ñoo xam ne yoon wi kon waxtu ne nam soso woon ca raabe ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba nëgë ni noonu lay wéyee ak taalibe ci jàpp yëpp bu ñu fa jógee itam danañ tànn lenn ci quartier dëkk yi nga xam ne kilifa yi ñoo ko sanc ci ndigalu sëriñ bi bokk na ca Gede dëkku suñu bàkki so ndax xam ngeen li ma représenté joone bokk na ci it danañ dem ndaam visité ko visité la fa nekk ci daara ak xam-xam ndax Cheikh mu Mourtada Cheikh Mouhamadou Mourtada defe na fa liggéey bu rëy ci biir loolu itam daara cosaan yi danañ fa dem xool ko bokk na ci daayira Serigne Souhaïbou bokk na ci daayira Serigne Abibou ak yeneen Serigne Abibou ndax xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko toxal si woon moo ko fi indi muy jàngal Cheikh Abdoul Ahad ñoom ak sëriñ Cheikh ak Serigne Bakk Madina daara ji ba na gën tey la gën a dund bokk na ci itam daara Serigne As Jaxate ji ci biir jumaa ji nga xam ne Cheikh Mamadou Fadil moo ko sampoo mu ne ci biir jubaa ji ndax Serigne Touba dafa wax ne waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikri wa tafahumi bokk na ci barab yi nga xam danañ ko ziyaare mooy xisbu tarxiya ndax xisbu tarxiya alali Serigne Touba la te ku fa ku fa dem da nga xam li nga xam ne yoon mu réalisé la bokk na ci réalisation yi danañ leen wan raay bi ndax raay bi ñoo xam condition yi ñu ko liggéey ak hôpital Matlaboul Fawzayni bi nga xam ne murid yee ko tabax ci seen alal te loolu bariwul ci histoire fu mu am li ñëw ak saxaafa al muridiyya culture murid murid dañoo am seen culture bopp ndax gis nañ ne exposé yi gën a màgg ci ci ci ci àdduna tey boo fa demee da ngay fekk murid yi di soli laat di takki maxtu ngir ñàkk complexe gi Sëñ Tuubaa def ci ñoom loolu itam culture murid dafa bari danañ leen gën a wan lii culture yoonu murid nga xam ne réyuwuñ ko fenn te day mel ni fii rek la bokk na ci loola kaamil yi ñuy bind ci loxo tey boo xooloon Tuubaa liñ fi bind ci kaamil ci loxo kenn xamul mu toll loolu itam daañu leen kon ñu xool gis ko xam ni mu demee bokk na ci liñ leen bëgg a wan itam mooy lang risque gi nga xam ne làngooru risque na ko te am kilifa yu baax yu ci liggéey liggéey bu rëy ku mel ne sëñ Mbay Jaxate sëñ Babacar Jaxate sëñ musaaka sëñ Mor Kayre Seex Sàmb Jaar Mbay ak ñeneen ñooy demee ba ci nëgë ni ñi nga xam ne ñi ngi taylu ci wàllu wolof gën la dëgëral loolu kon loolu bokk na ci ñàkkut nag yoo fàtte ndax day lu gudd te jataay bi laajut loolu waaye kon ñi ngi ubbee loolu di nuyu rek ñi nga xam ne ñoo fi teew tàmbalee nuyoo bi ci gouverneur bi ma ko waxoon di ko yóbbanteem nuyoo ci kilifaam yi fi teew yi ko fi teew yi mu fi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'Intérieur Antoine Diome nga xam ne ñépp xam nañ ni mu demee ci yoon wi di taalibe sëriñ bi taalibe bu yàgg nga xam ne ñu fi dëkk ñëpp xam nañ ko di di ko yóbbanteem nuyoo ci président de la République Macky Sall moom mi nga xam ne. liñ ciy def ci ndigal bi lañ koy def te lam ci war a taxaw it lam ca war lépp def na ko ca kon ci tuur sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di tënk tuuti rek ci waajtaayu màggal gi ndax yi ci ëpp solo am na ci yoo xam ne ren teel gi ñu teel a waajal gi xaw nañu ci dimbali kon yenn yi ak cant lay doon yi ci reset ak ñaax lay doon ndax ñu gën a góor góorlu cant gi la ci jiitu mooy ren ñeenti forage bën nañ ko Touba ñetti forage la lañ programme ak benn boo xam ne man mii lañ ko mayoon ma war ko yóbbu ca sama sanj ba ca xisnul abraar yàlla def oto hôpital Matlaboul Fawzayni am jafe-jafe ndox te xam ngeen ne procédure état day yàgg may leen nañ bàyyi sama bos yóbbu ko foofa booba bën nañ ko te wax nañ ne bokk na ci forage yi ëpp ci dëkk bi dana ëpp hôpital ba kon dana dugg ci biir réseau bi beneen ba ci des it ngaabu lañ ko bënn moom itam dañ koy connecté ak réseau bi mu dugg beneen ba ci des dañoo gisoon ne jafe-jafe yi li ci gënoon a metti mooy diggante daarul xudus daarul minan xaaxira ak sancaan yi rawat na fu mel ne boobu ren ndax dafa am ginnaaw jàpp këriña ña ak Daaru Rahmaan ak ba ci kaw ba ca ndaamaatu moo tax bi loolu amee ba sëriñ bi joxe ndigal euh, sëñ Ahmadou Mokhtar itam ñu ngi koy santaat foofu ndax def na fi ci taxawaay bu mat ndax moo joxe ndigal joxe benn pàkk ci biir Daaru Xudoos ñu bënn fa forage ba ngir forage bi bu noppee ñaanaa leen teewa yi nga xam ne état bi joxe na ko mu ëpp 30 kilomètres li ciy gën a nekk priorité mooy nañ fexe ba mu dugg ci biir Daaru Xudoos jaar kër Sëriñ bu ak si biir pénc ma dem Daaru Minam de jàll xayra ba fa mën a jàll mu continuer dem Touba mosquée bu ko defee loolu xëy na bu duggee ci réseau bi dana ci mën a indi soppiku beneen ba ca des mooy bu ngaaw bi bi ci des mooy boobu ren moom itam noonu lañ koy xëcc ci yëpp daje li indi li am jafe-jafe rek mooy wàllu réseau bi réseau bi ñëpp xam nañ fi mu toll. li ci yàqu dafa bari ndax bi ñuy wax ne quarante pour cent ci ndox mi day duggaat ci biir suuf si loolu yàgg na bokk na ci li indi jafe-jafe nab bi waaye loole itam sëriñ bi joxoon waxoon na ci président ba dox nañ ci ay jéeg yu bari étude bi di war a jëlee ndox mi Touba ba indi ko ba Touba étude ba noppi na li ci des ak mooy étude réseau bi nga xam ne moo ne biir Touba te ñoom ña nga ca xëy na mën naa balaa yàgg di ay. weer wala ñaari weer ci ni ñu ko waxe woon ci lañ ca nañ ko waxee jox nañ ko daal ña ko war a liggéey du ma dugg ci dat yi nag loolu képp ci des bu noppee ñu xam ne li koy liggéey nangam la bu boobaa nag moom da koy sëñ sëriñ bi nag mooy xam ba da koy woo taalibe sëñ Tuubaa yi def ko wala bàyyi nguur gi def ko waaye bu noppee ñoom ba jëbal ko ko daal dillu ko ci lu lu mu ci dogal rek ñu xam ne mooy mooy nam war a demee waaye lañ ca waroon def ñoom def nañ ko ci ba ca desit doonoon jafe-jafe bu ñu jaaxal mooy nab bi wax naa ko bëgg témb bi may sëriñ bi yónnee ci moom def nañ ci yitte moo assainissement bi ndax lu ma ñetti at wala ñeent waxoon naa leen leneen assainissement Touba de dara jiitu ko ci li war a def ndax màgget gi diir bu gàtt dana dugg ci nawet fii may waxee ak nii màgget gi ci catul wax set la ne wax set nag xam ngeen ni mu baaxoo bu fekkee ni mu baaxoo demee ni la demee dëkk bi dana fees kon loolu problème bu rëy la def nañ ci yitte état bi génnee 23 milliards yu jëm ci assainissement bi boole ko nab bi nab bi moom tàmbali nañ ko forage su bari tàmbali na di pompe muy dem ci réseau ba di dem ba am na yu bari yu tàmbalee wàcc am na kër yoo xam ne seen ndox kër yi génnoo nañ seen borom génnoon na ca ñoo ngi dugalaat seen i bagages. kon sëñ bi yittee nit ñi rekk ay item armeel ya demal na ba am na ñoo xam ne seeni waajur mootuñ fa ak nag ndox wàccoon na dama xamaatul bi mu tawaatee nag waaye wàccoon na kon loolu jéego na te gis naa forage sa war a doon fukk ak benn lañ ci defaragul sii si moo fonctionné gul waaye lu bari jot naa wàcc ba wax na ne wàccagu na lu mat amet kon foofu moom mel na ne yàlla def na ci tawfeex ba incha allah dana gën a wàññi lu bari ci jafe-jafe yi assainissement bi it chinois yi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo leen indi ci dëkk bi ñoo yor liggéey ba kon loolu itam dañ ci soññ ñu yor assainissement bi ñu taxawu leen fexe ba luñ mën a gën a gaaw fii ak màgget gi effort yu ñu mën a def rek fexe ba ndox mi wàññi ko ndax màgget kat bu nekkee ci biir wax sax dana jafe ndax mbedd yëpp amut assainissement. am na ci mbedd suuf yu bari te nit ci mbedd suuf yi lañ daa mbeddi suuf yi nag bu fekkee yëpp dafa taa dana gën a jafe kon luñ gën a mën a góor góorlu fexe ba nit ñi conditions yi nekkoon daaw ci lu metti mu bañ amaat nañ ci góorgóorlu donte le rek jéego bu rëy am na ci ren ndax 30 bi xam nga ne lu ittee doon sëñ bi def yàlla def na daanaka àgg na yaakaar naa bu fekkee des na it xañ na benn point moo ci desoon. te foofa dañ faa war def benn centre bu mag boo xam ne la muy jël dafa bari te déggoowuñoo ne ñamoo ñamoom foofa waaye la ci des lépp wër na dëkk bi te loolu dana wàññi du bari beneen ba ca desit ak cant lay doon ndax sëriñ bi itteem jëpp mooy Tuubaa amul soxlay boppam maa ngi fàttaliku talibe ñu koy defal ca Tuubaa Mbul ca jamonoy Cheikh Sidi Muxtaar laa xamoon farata ji sëñ bi sàkku ma dox ko ci président ba yàlla def mu nangu ko moo yeneen i tëli la woon waaye xam nga procédure état bi muy guddee ba bi muy bi muy sotti bi ñu koy bi ñu koy accordé sax boobu Cheikh Sidi Mokhtar rek waaye bi ñu koy tàmbali xëy na daaw la diggante daaw ren lañ ko tàmbali liggéey ba sori na waaye li ci yéeme mooy ba président ñëwee di ko wax sëñ bi sëñ da ko ne bu fekkoon danaa am soxla de ma lool loolu jenn yitte jooju laa waaye nag amu yitte bu ngeen ko defee baax na bu ngeen ko defutit du wàññi dara li ma gën a daal mooy lu ñuy def nañ ko def biir Touba kon kooku Touba rek kooku ci biir loolu itam yi nga xam ne ñaan na ko ay tëli yoo xam ne ñu ngi koy def ci biir Touba kon am na ci yoo xam ne sotti na te itteeloon na sëñ bi ndax yónni na ma ne ma damay day soxla yu ma ñor ndax barab bu ci nanam demee bu ma soñoon ñu talit ma ko ndax dëkk bépp lañ bëgg tali waaye xam ne lépp kenn mënoo ko yàlla mi ko mën sax defu ko waaye nag ay priorité day am bokk na ca Daarul Karim bi nga xam ne ma Massamba moo ko sanc ci ndigalu Serigne Touba moo Cheikh Mahamadou Moustapha ak Cheikh Mahamadou Fadil la boole woon muy tindoo di ak ndindi incha allah bu àndee dogalu suñ borom Serigne Cheikh yi ni toog teewal fi Serigne Mamour suba danañ tàmbali liggéey ba entreprise ba ko war a def jekk na suba danañ tàmbuli liggéey ba bu ñaareel ba it mooy yoonu Tindodi Tindodi ni ma ko waxee ñoo bokk leen digal yi Cheikh Mahoud Moustapha mooy dëkk bi mu njëkk sanc xam nga la tax mu bàyyi ca tuba xusnul ma ab da tudd kon Tindodi waxuma lañu fa dëkk waaye bu doon génn kër sax yaayoon yi ñu tëlli ko ndax nam dem fenn waru ko jiitu ba ca desit mooy bi jëm ci Baay Faal yi njabootu maam Cheikh Ibrahima ñoom duñ jàmbat duñ laaj duñ wax duñ ñëw ci sëñ bi sax ne ko bëgg nañ nangam joxe addi ak déglu ndigal lañ seq sëñ bi waaye sëriñ bi nag ci yërmandeem ak xam seen pëstéef seen taxawaay moo tax mu defoon ko yitte ba moom itam sotti ne bu suwaa danañ ko tàmbali ak yeneen yi nga xam ne moo war a xëttale autoroute bi moom agsi ci biir dëkk bi yi nga xam ne nag ñi ngi ci xëy na ñi ngi ñaan déwén wala déwén jéen mu sotti te ñor na sëñ bi mooy corniche bi nga xam ne moo nekk Touba ni defaree yoonu ndindi bi ñu fexe ba corniche bi war dëkk bi ba ca dolli ko mooy 120 bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké defoon na ko mu wër Touba gépp loola def ko autoroute bokk na ci yi nga xam ne ñor na sëñ bi kon daal ñi ngi ñaan ci yàlla ci barke suñu Touba yooyu yëpp niñ ko diggee te ne ca lépp sotte jàmm te bañ am benn gàllankoor fi may jeexale rek mooy ñaala taalibe yëpp ñu am ak fekke ak kàttan ak wér ba àgg ca jàmm bali ci Sëñ Tuubaa digle ñu mën koo defe nu kawe seen njortu te xam ne incha allah sëñ bi ci yërmandeem ren ji màggal gi yaatal na ko ba nga xam ne quartier yu sori yi nga xam ne ñooy yi bëgg nañ fenn fu ci ne ñu gën a dund màggal gi ndax xam na ne ña fa ëpp ci ña fa dëkk ñu néew doole lañ la Serigne Touba waxoon ne Touba ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi looloo leen fi indi am na ci ñoo xam ci tumuraanke gu mett lañ nekk moo tax ci ren ji incha allah ci commission culture et communication benn nañ ci benn bànqaas boo xam ne waa Hizbut Tarqiyyah danañ ko coordonné mu aju ci commission boobu ñu fexe ba def ay baas lu bari ci quartier yi di fa yëkkati alxuraan ji xasida yi ni ko sëriñ bëggee waaye di fa def ay teraanga ba ñuy néew doole te mënaluñ seen bopp teraanga ñu koy defal seen bopp ba nga xam ne kenn see fa gën a sori ak kenn ci biir dëkk bi dana bokk ci biir màggal bi noonu daal na ko sëriñ bi bëggee di ñaanal bu baax rek ñëpp ñu dugg ci jàmm te xam ne ni ma ko waxee rek ndigalu sëriñ Touba la ndax sëñ bee ko daa defal boppam bi mu ñibbisee Touba itam as Cheikh Mouhamadou Moustapha woyal liggéey ba ne ko sëriñ Touba daa defee as Cheikh Mouhamadou Fadil nag moo ko wote tubaa indi ko li li ñuy wax ijtihaad la ngir bëgg ñëpp januñ ci ni mu ko waxee ci làmmiñu boppam ba mu bàyyi ko fi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waye liggéey ko ak Cheikh Abdoul Khadir Mbacké li muy gàtt gàtt danaa wax ne si Maodo Moussa moo ko wax ne ko sa baay de nee na ma lu baax lu baax baaxe na fa ne waaye sakkane ne Tuubaa mu daane moo tax lépp lu may def rek mooy koor di kori di tabaski di màggal di gàmm moo koy defee Tuubaa mu bàyyi ko fi ak Cheikh Saliou Mbacké ñëw lam ci wax mu ngi ci bànd yi ñëpp koy digg Serigne Touba nee ñaar fu ñu dend kii di ko dundal kii di ko ñàkk dundal waxtu wu ne ka koy dundal di gis lu muy tiime ka ca des ba mu fi bàyyi ko as Cheikh Mouhamadou Mbaar ki ñëw kuréel gii di saytu màggal gi te yàlla def ma nekk ku xeebu ànd kook ñoom jiitewuma ko sa ndax baatu président comité organisation bi ma soyoon kenn dootuma ko wooyee moom bu mënta ñàkk rek jëw jëwriñ doy na ndax yoon yi moom ni ni mu doxee rek moo sa yoon lu àdduna soppi ko soppi ko loolu duñ ko soppi moo sa yoon daal jëwriñ ji ñu koy wax te bañ a wax président comité organisation bi bu dee li ci mën naa wéy ni mu daa doxee ginnaaw bi ak Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ñëw yàlla suñu borom dolli ay leeram dolli seeni leer moom it ñëw gën a dëgëral liggéey bi gën koo sàmm ba mu agsi fii di ñaan la ak Cheikh mu Mountakha mii nga xam ne moo fi nekk te yàlla def ba ñu taxawal kuréel gi mu yëkkati woon kàddoom yu rëy ya ca biir kër Sëñ Tuubaa gi kilifa yu tedd yi ma àndal yëpp ku ci ne moo la woo jox leen diggante ne la ànd leen mu ndax bu ma soñoon mu dem kon dem gëm bëggoon mel ne liggéey bi ñu ngi koy am ba dëgër yi teg ca it ne mooy boroom digal li ba fi ne dama koy wax kon yàlla na fi yàgg te ànd ak te liggéey bi xam naa wax ji gudd na sax waaye nag màggal gertoon loolu ñu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa